nga xam ne rek moom la gouvernement bi di amal àllarba ak waa reporter sans frontières union internationale de la presse francophone ak waa UNSAS ñoom ñëpp jamono ji ña ngay woote ngir ñu amal waxtaan ab ndaje ñii di waa CAP daañu ko amal ak société civile alxames ji lay doon l'observateur di peko journée sans presse démocratie sans voix yéenekaay bi defub bilan ci bëccëgu démb bi nga xam ne rek waa biti réew ñëpp ci jot enquête yëglekaay ak le quotidien xëy ñoom tamit ci njëkk ne journée sans bu démb yéenekaay ne mot d'ordre bi daal ñépp a ko topp daanaka waa Reporters sans frontières waa BBC muy chaîne africaine yi ba ci maghrébin yi presse internationale bi ñoom ñépp ñoo àddu jëmale ci li xew démb fii ci réew Sénégal waa Reporters sans frontières ak waa IPF ñoom ña ngay wane seenug njàppale ñeel média bu Sénégal yéenekaay ma jàmbal jaañ bi nag moom xëy xam le ni daal Walf képp rek mooy grand média boo xam ne rek daanaka respecté wul mot d'ordre bi a mi bu Sénégal maanaam ngir saafara mën a am Abdou Mbaw di xamle ci biir yëglekaay bi ne dañoo am pouvoir boo xam ne rek xamul lan mooy priorité Waly Diouf Bodiang mi nga xam ne mooy directeur bu port addu jëmale ci journée sans presse bu démb bi nag ma ngay xam le ni daal journée sans impôt la ko tuddee te loolee nag yàqub énergie la c'est perdu d'avance des ba tey ci journée sans presse bi nga xam ne rek média bu Sénégal démb daat nañ koy amal yéenekaay boobee di laas la ndax fësal ci ne démocratie bu Sénégal moomatul boppam révélation ne ko journée sans presse bu démb corde bi nag ñu bëri ci média yi topp nañu ko yéene bi ne moom kay ndam lu rëy rëy la ñu ci am ñoom professionnels yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci média bi ndax bëccëg la boo xam ne rek wane nañ ci seenub taxawaay ak seenub doole direct news ne moom kay réussite totale la ñu ci am ndax journée bi nag ndax fañu ko doon xaaree mujj na faa romb loolee di fësal ne média yi ci boppam xam xamle nañu ne démocratie bu Sénégal dañu koo tàmbalee salfaañe yéene kaay bi ne diirub ñetti at a ngi nii nag dalee ko ci 2021 jàpp 2024 Sénégal dafa dellu ginnaaw ba toll ci ñeen fukk ak juróomeelu place bi nag ci classement mondial bi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu liberté de la presse te lu ni nag bu ñu ko seetaanee Sénégal mën naa dem ba tollu ci ndàdde ba Reporters sans frontières nag ma ngay woo kilifay Sénégal nag ngir ñu fexee saxal lépp lu jëm ci wàllu liberté de la presse garantir indépendance éditoriale yu rédaction yi waaye tamit nag fexee jàppale média yi ci seen wàllu koom ak wàllu financement yi Vox Populi yi xam le ni daal appel boobee nga xam ne rek moom na ko état bu Sénégal mu toll ci soixante-quinze pour cent ci yoo xam ne rek moom la ñu war a fay état bu Sénégal Amadou Ba di ab député ca Pastef ne chantage bii daal du jàll ndax yeneen secteurs yi dañoo war a def ni yéen fi mu toll nii nag li ñu war a def mooy amal ay dialogue yoo xam ne rek dafay dox ci diggante état bu Sénégal ak média yi ndax démocratie mën naa dem sans presse presse boobee nag bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe ñoom ñoo ko yóbbee seen bopp ndax anam bi ñuy doxalee nag faaw rekk ñu soppi ko bu ñu bëggee am modèle économique bu am solo addu jëmale ci leneen mu soxol yeesali ñu bëgg indi ci wàllum règlement intérieur bu assemblée nationale yéene kaay bi ne ña waajal ab procédure d'urgence boo xam ne rek ca la ñu nekk les éco yëglekaay ne ko assemblée nationale ak lu jëm ci règlement intérieur bi nga xam ne rek moom la ñu war a soppi aljuma ji ab session ordinaire nag ubbi nañu ko démb ak commission technique boo xam ne rek daañu amal ab ndaje niki tey ji loi bi nga xam ne rek moo jëm ci juróom-ñaar fukki député ak juróom-ñeent Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolli moom ma nga cay wone ab taxawaayam kaay xëy addu jëmale ci lu soxal wàllu domaine public maritime bi nag yéene kaay bi ne rapport bi jébbal nañu ko njiitu réew mi moom président Bassirou Diomaye fay nag di xam ne taxawaay gi mu fas yéenee am nag ngir jooyantiwaat lépp loo xam ne rek moo soxal doxalin yu jaarul yoon ñu ci nemmeeku moo waral muy garantir askan wi ne dina fexe nag ba ñëpp jot ci domaine public maritime bi yéene kaay bi di la témoin ne moom kay balaa yàgg dara rek daañu am lu leer ci li nga xam ne rek moo soxal rapport boobee nga xam ne rek jébbal nañu ko njiitu réew mi moom président Bassirou Diomaye Faye ma ngay xam ne rapport boobee daañu ko topp doxol lépp ba mu jaar yoon lu toll ci téeméer ci ay woto ak yeneen i mbir yoo xam ne rek ñu ngi ko jëlee ci ñi nga xam ne rek dañoo jege woon Macky Sall bés bi le jour daal di àddu jëmale ci kàddu yi président Bassirou Diomaye Faye ma ngay xam ne ni daal lu soxal rapport boobee nag ñenn ñi daañ leen convoqué ci kanam yoon bu ko ñu daal leeral àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram yéenekaay bi di Rewmi ma ngay xam ni nag ne lu jëm ci wàllu super coupe d'Europe bi nag Real ak Atlanta naka tey jii lay doon mu doon in première pour Mbappé jeexale yëglekaay kaay ak la xew ca Mbour yéene